bokk internet yu impro am nañu mbégte jàkkaarwaat ak yéen ñu koy defee saa su ne su actualité amee rek ñu jóg ànd ak yéen tey nag ku ne xam ne ni ñu ngi ci période tabaski di ñaan ñi ko fekkee daaw fekkee wuñ ko ren sunu borom yërëm leen te yaatal seen bàmmeel ñi ko fekkee tëdd ci lal hôpital yàlla may leen weer bépp borom kër bii daw di ci ngir loo jox sa njaboot yàlla yombalal la ko te may nu fekkee ak tal ak wér ñu ñëw nag tey seet si sunu papa Khadim Samb di koo xam ne yaakaar naa ne période bi buñ ci tàppee rek amatul jot ku koy seet danga koy fekk ci biir xaar yi amour la ci am nag dem na ba nekk lu mu ciy sax mais dem na ba loolu nee na sànq bu siburoo bu duggee ci biir xaar yi wér parce que loolu la tàmm loolu la xam ñu war a waxtaan ak moom ci lu bari nag tey ci ñetti ponk ci njëkk actualité làmb ak coowal làmbali li bi ci des ñu waxtaan ak moom lan moo tax euh, euh, tey jii mu ne ci xar yi ba léegi ak lan la ci gis Père Khalib nuyu naa la. jërëjëf euh, Mouhamadou Fadal noo ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant sunuy waajur di sant Serigne Touba Khadimu sool euh, di la nuyu di nuyu Medoune Diouf bii nga àndal ci impro di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan impro ci biir réew mi ak bitim réew rawatina waa diaspora bi di ñaan yàlla sunu boroom réew mii di Sénégal yàlla na yàlla sunu borom dolli fi jàmm yàlla na ko defal ñi ko dëkkee di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal kilifa aada yi di ñaan yàlla sunu boroom mi nga xam ni mooy boroom jàmm yàlla na yàlla sunu boroom defal kilifa diine yi jàmm waaye yàlla na ko defal taalibe yi di ñaanal le président Macky Sall de 25 mars ah, waa ji nga xam ni moo jox jarbaatam bërki démb lenge yi muy Bassirou muy Bassirou Diakhar Diomaye Faye di ko ñaanal fa mu nekk tey ak liggéey bu bees bee mu yor yàlla na ko ci yàlla sunu borom may ndam lu mel ni lim ko may ci fukki at ak ñaar yi Sénégal yàlla dimbale ko ci kàttanam mu organiser élection dimanche président Bassirou Diomaye gagné altine ñëpp liggéey yi di nuyu soxnaam première dame soxna Marème fay sàll ak njabootam di nuyu le président Bassirou Diakhar Diomaye fay di ko ñaanal yàlla sunu borom réew mi yàlla sunu borom teg ci loxoom yàlla na ko yàlla sunu borom oyofal. moom ak gouvernement am di ko ndokkeel ci tabaski gi nga xam ni moom la ñu dëgmal ëllëg te li yàlla sunu borom dogal tey bu fekkan ni xar dafa manqué Sénégal ñu ni menn xar rek am Sénégal am kuuy moom rekk la yàlla sunu boroom jox màqaama mu jël xar moomu. ñu julli ba pare mu tëral ko te paaka bi wax yàlla sunu borom ne ko maa ngi yéene waale sénégalais yi ak sénégalais si di julliti Sénégal yëpp góor ak jigéen maa ngi di yéen tabaski mi ren di ñëpp am tabaski moom rek la yàlla sunu borom defal loolu. kon ñu ngi koy ndokkeel di ko félicité di nuyu nag sénégalais ak sénégalais yëpp di ñaan yàlla sunu borom tabaski yàlla nañ ci dugg ak baa génn ci ak siin. mbégte mi nga xam ni sunu maam Ibrahima aman na ko ci bés bii nu dëgmal ngir jëfe yàlla ndigali yàlla sunu boroom Ismaayila di doom ju nungul baayam déggal baayam nungu yàlla jëfe baayam jëfe ndigali yàlla ci rendi ko mu nungu ko ndeyam amul lu dul benn doom nungu boroom këram jëfe ndigali yàlla ci rendi doomam mu nungu ko ñetti mbégte yooyu yàlla na ko Sénégal yeeg Sénégalais yëpp bég yàlla na ko julliti Sénégal bég waaye yàlla na ko julliti àddina bég euh, di balu ñëpp àq di baal ñëpp àq di nuyu suma njaboot yëpp di ñaanal alaaji daam sàmm sama wajuru góor wi des yàlla na yàlla sunu borom guddal fanam te may ko wér di nuyu xalifa sëriñ Mandumbe Mbàkke muy sëriñ Ibrahima Mbàkke ñu wax sëriñ Ibra Xuja ak sëriñ Cheikh Bintu ak communauté raalu Dendey guy gi yëpp di nuyu sunu maire muy Pape Abdoulaye Salaan di nuy sunu chef de village bi yilif chef de village ci commune bi muy Alaaji Fàllu Taal di wax ni xar nag xawma kañ laa ànd xar. lool fa bëggoon ubbee sunu waxtaan ndax période bi ku ne xam na ni aas bi waaye bu période bi teroo rek kuy wër xaadim boo ko fekk ci dara li doo ko gis loo tax sa diggante xar. waaw xam nga. nit ku nekk te te jéggi-jéggi bi sa bàyyi daa jéggi mooy rëq sa ci li yàlla dogal suma baay tey jigéen a quatre-vingt-douze waaye ba tey mi ngi ci xar yi ba fii may wax ak yow mi ngi ci xar yi moo tax ma ni la man xaw ma kañ laa ànd xar damaa judd rek gis xar xar judd gis ma kon li daal Balla Gaye ci làmb moo la ci xar yi waaw dangaa judd gis ci xar damaa judd rek maa xar yi danoo juddoo bés ba juddoo ay xar judd na ay nag judd ay bëy judd nii rek laa la mun a wax aw ma dara lu ma la mun a wax lu dul ni la damaa judd rek maa xar nu gisante ànd. kon loolu dal la ci xar boo gisee koo xam ne dafa téye ak cuur ba pare ñàkk leen a for wormaal ah, dooy di leen lan lay def damay feebar euh, faadal gis nga faadal suma ma rombee xa damay dugg te wër naa tey ci biir daral yi. romb ay xar fi ñu tëdd salte bi mu salte xar yaa ngi weex mais ñu ngi ñuul kuk tilim di wokkutu damay bëgg a jooy faadal ma xool xar yi ni ñuy jeexe naaj bi ngeen yeew sama xol day jeex te képp koo gis ci àddina muy mala mu mën a doon nga di ko jëfandikoo te doo ko teral foog yàlla tedd di la xeex yi ma mujj a xeex ci ndakaaru fas a tax ma xeex ko. ndax mel ni mi. waaw dama demoon ba service élevage reconnaître ma comme ambassadeur fas ci Sénégal euh, docteur vétérinaire bi jiite woon loolu ak sunu benn xarit bu dëkkoon Tëngéej muy salaam Guèye dañ ma defaloon carte maanaam daje naag saret ñu sëf fas ay fourne gaz fas fi daanu ma dagg arne yëpp. taxaw woo police mu ñëw jël si fas wi ma xeex ak borom bu ma demee police ñu téye fas wi téye borom fas wi. def naa ba toll foofu ci réew dem naa ba toll foofu ci fas moo tax man xar xar yii nga gis yëpp am na ci yoo xam ni seeni maam nga sama kër ñi jur seen ndey mbaay ñu jur seen baay kër gu toll li gi ma wutal sama njaboot dëkk ci ak sama soxna ak sumay doom kër gu toll noonu laa wutal xar yi defar ko ñu dëkk ci. tabax ci biir ay néeg pour ñiy saytu xar yi dëkk ci néeg yooyu ni ma amee médecin traitant boo xam ni mooy toppatoo sama njaboot ak sunu wér yaram noonu laa amee docteur vétérinaire boo xam ni mooy toppatoo xar yi fukki fan ak juróom yu nekk mu ñëw xool yëpp xool buy soox xool bu soj xool xar bu girib xool xar boo xam ni bii euh, weyi sëq na xool xar boo xam ni bii euh, soj na mu toppatoo leen noonu lay toppatoo xar yi xar yi ngooñ rek lañuy lekk ci àddina ak ripaas ak ñebbe ak mboq soo demee sédiment di nga gis sec sec segu xaadim sàmb une tonne rek une rek une rek soo demee élément sandes di nga gis segu xaadim sàmb une tonne rek une tonne rek une tonne rek une tonne ripaas une tonne mboq moo tax xar yi jaayuma ko parce que damay wut xaalis ci xar yi dama leen di yor di bànneexu ci ñoom ñu di ma teral di teral sama njaboot di teral sama kër ndax xarama defal lépp ci àddina xam nga lu ma xar mayeegul roppalaan mais lu roppalaan ci àddina rek xar jox na ma ko. foofu la ñuy ubbiwaatee suñu waxtaan tey daral bi fii ñu la fekk. fi ngay nekk ba ban waxtu. fii léeg-léeg dinaa fi toog xelil jox ma dinaa fi toog ba deux heures du matin ma door a yéeg fii suma kër. lépp ci xari rek. waaw dinaa fi toog ba deux heures du matin suma ma soxnaa ngi nii dinaa toog fii ba deux heures du matin ma door a yéeg. leneen li ma ci bëgg a laajaat tey bu nu rendee xar yi ba parce que ñi bari nañu xam-xam lu xar te xamuñu xar ak ndawal ndax bu nu rendee ñaari xar ba teg di nga mën a ràññee ci ndawal gi bii xar bu góor la am xar xam nga loolu wax naa ko waxati ko bu ñu rendee xar yi daggat yàpp wi jaxase ko togg ko ba mu ñor ñu teg ko ci bool bi ma tiim ko ne la kii mooy bu jigéen bi bii mooy bu góor bi man nga wéer xar yi ndawal gi nga def ci xàmmikaay bu la neex li ma lay wax du deñ maanaam li ma xam ci xar ak nag ak fas su ma ko xaman ci dictionnaire savant laay doon wala ma doon professeur agrégé. mais nooy def ba xam loolu parce que lu dem ba togg ko jaxase ko ak marinade yan cee def ak bagage nooy def ba ràññee ko parce que mooy sama métier ci laa juddu ba pare bëgg ko mu teral ma maanaam yow ni nga jànge école ba am BFEM dem première dem neem primaire dem second dem nangam dem nangam dama juddu ñu di ma jàngal xar bu juddoo noor. soo ko reyee nii la yàpp yi mel sama baay ni ma xar mi bu fekkee nawet la juddu di taw te juddu boo ko reyee yàpp nii lay mel xar mu jigéen bu damay romb barke Cheikh Ahmadou Bamba damay romb rek seen ñu wékk ay sigo nag ma xam nag bi bu jigéen la wala bu góor xam nag bii noor la juddu walla nawet la juddu xar mu juddu ci taw muy taw mu juddu di tawte ndey ji ëmb ko di tawte mu juddu di tawte kooku soo ko reyee yàpp du bokk ak xar boo xam ni noor la juddu xar buy lekk ngooñ sax ak xar buy lekk ñax mu tooy seen yàpp du bokk bu ñu ko toggee ma génne ko ne la bii noor la bii nawet la li may wax ku ko weddi ko def na rey xar yi dagg bopp yi dagg geen yépp dagg sigo yi teg ko ñu def ci xam ne kaay ñu woo ma ñëw. jërëjëf loolu leeral na ko. Euh, faadal li ma xar defal war naa xam xar faadal xarama jox teraanga bu ma am ci àddina xarama ko jox ci xarlaa laa juddu xar jàng xarlaa xam xara tax ma takki soxna doom yi ma yàlla jox ci xar laa fay seen jàng ci xar laay suturluwu ba fii ma toog di wax ak yow nii ndax di nga yar xar dem ba bis ko bëgg ñeewante ko. amul benn bis ci àddina xar yi ma yar amu ci benn bu may tabaskee. lu loolu. mënuma ko. amoon naa benn xar boo xam ni mooy bàyyi mooy maami xar bii. maamam. taw feexa ko jur. tawfeex moo jur kii tawfeex moo jur maamam bi jur ko jur. xar mi waaw kii un an la am. moom mi waaw. maamam ñëw nañ ba ci suma berse fay ma ci six million ma bañ. benn xar. waaw six millions te boobu ñaari at la am. ak weer ak fukki fan ak juróom mu xeex rek dóor béjjén bi ci dafa doon mbëkkanteeg benn xar rek béjjén bi mooy dal ci miir bi rek béjjén bi damm ci saxu bi ñu woo ma maa ngi Dakar ñu wax ma ko ni ma béjjén bi dafa damm ñu foto ko won ma ko mën nañ ko rendi ñu rendi ko waaye dama ne duma dem ma du ma du mukk ci àddina nañ suul béjjén yi suul der bi dama ne suma soxna duma ci lekk mukk ba yàpp woowu jeex billaahi ba ni lekkoo ci te matoon na presque quatre-vingt-dix kilos waaw donc tabaski gi damay dem jëndi ba fi may wax ak yow nii barke Serigne Touba amaguma xar. da toog ci biir xar. dal waaw. kon daal du say xar. non du ma ci tabaskee parce que mënuma ko yii ñi ma xam nga mala soo ko juddulee di xëy ci moom di gont ci moom ba mu miin la xam la di la jis nga di ko gis boo ñëwee lu mat téeméeri xar boo ñëwee xar mu nekk xam ki ko jur xam kañ la juddu amu ci benn xar boo xam ni boo ñëwee ci seen bulletin de licence yi xar mu nekk bés bi mu juddoo waxtu wi weer wi at mi xar yi dañoo am ay kayitu juddu ko. yëpp xar yi ñaari nit laa jël embauché leen di leen fay solde di leen dundal jox leen kër jox leen courant jox leen ndox tabaxal leen kër ci biir kër gi xar yi nekk tabaxal leen fi ay néeg defal leen salle de def lépp. ñu dëkk xar ñu dëkk xar yi ma di leen fay solde bu weer dee. yàlla dala barke bi topp suñ ko toppee tey ci waxtaan wi mën nañ cee géejal. te xam naa ne xar mën na ci wax ba fajar te du jeex ndax day say xam nga xar ni ko yàlla sunu borom boole ak doom aadama boolewu ko ak doom aadama menn mala ci àddina tax loolu yow bi nga juddoo yow jëy la yow Mamadou Fadal amoo tur liir bi rek lañ doon wax amoo sant xar mee tax nga sant sa santu baay xar mi xar mee tax nga amu tur bi nga biñ la tuddee xar mee mandargaal saw tur waaye sant wi xar mee tax nga jot ko dañu naa bu imaam liqaamee ci noppam di joor liqaam ci noppam càmmoñ jàng li muy jàng tibli tur wi ne na ñu rendi ñu rendi ba pare mu door ni tudd nañu doom ji diw lu tax du ñu rendi dooru tudd bés bi nga xam ni Jibril bés bi mu bés jëkk a amee problème sérieux ci mission bu muy doxi xar la jëli woon àjjana kere bi nga xamante ni bii ñaari mission la benn bi mooy bi ko yàlla yebalee mu jëli xar mi pour roof ko sunu maam Ibrahima rendi xar mi Ismaïla génn ak bi ñu sànnee sunu maam Ibrahima ci sawara wi la ko sunu borom ne bu te bi muy jël si maam Ibrahima ci sawara wi te jaar na àjjana jël mbalaani wurus jël xaalis jël boisson jël parfum dikk jël seulement Ibrahima te booba giñook tubéy gaa ngi commencé bëgg a tàkk paak bi daw na ba deret ji sànni Ibrahima jàpp ni ci baati Ismaïla la ko dawal mu teggi mu dekk ci baati xar mi kon xar ku xam dëgg-dëgg taarix xar da fonk xar danaa la waatal ci Muhammadu Rasulullaay xar yi ma juddulee xar mu ci nekk boo feebaree li may yëg sama doom feebaree laay yëg ñii sumay doom lañu ak ñu may liggéeyal fas fi feebar na ma jël man samay gàllaaj yi may naan yi may sangoo dikk di ko ko diw ci guddi gi sama fas fas fi nga xam ni mooy entretenir xar yi pour bëgg mu waaw ñaan yàlla sunu borom julli ñaar rakk na sunu borom kii moo defal lislaam lu ko kenn defalut yaa bind fas yaa ma bind muy mbindaafoon may mbindaafoon maa ngi lay ñaan na jóg ni ma la koy ñaanee su ma tawatee mbaa bu sama doom tabatee mbaa sama jabar di fonk nga ma la de gis nga jullit laa mais bu doon may taamu xar yi fi ñu nekk bu ma génnee àddina foofu lañ may suur ci xar yi loolu fa la wax yam fa la ak bëgg yam. waaw ñi ma xam kii sama soxnaa ñoom xam nañu suma diggante xar xam nañ li may daj ci xar néew na éleveur buy buy béy 1500 saag yi xonte ko ba mu jeex. te yow doo jaay ngooñ. danaa jaay sax bu ma ne ren bëgg naa jaay parce que dama yàlla daf ma dimbale nawet bi nu génn tabarkàlla macha allah yàlla may ma ngooñ mu bari parce que am naa presque mille six cent mille sept cent saak donc euh, jàpp naa ni xar yi du ko mun a jeexal te ngooñ mi dafa tawtiwul dafa rafet donc dinaa Seckoura mun naa jaay cinq cent cinq cent saak wala six cent ba pare dese ngooñ bu soobee yàlla incha allah. jërëjëf loolu benn point bref la rek bu nu doon tuub cukki ci wàllu xar ndax dañ ko fekk ci daral bi ah euh, Père Khadim nag ñu dugg ci actualité nag muy coowal làmb ñaar laa ci jëkki bi may njëkk a tàmbalee mooy coowal roi de arènes ak coowal li nga xam ne moom mooy champion d'Afrique bi nekk ci diggante Eumeu Sène ak Franc nga fekkee làmb bi mu fekkee làmb bi tey ndax Eumeu Sène nekk na champion d'Afrique ndax Franc nekk na champion d'Afrique parce que coow na te nag yaa fekkee làmb bi démb fekkee làmb bi tey. waaw xam nga Eumeu Sène champion de Afrique la. kañ la ko doon ak fan la ko doonee. xam nga Eumeu at yi ñu ko jox sax boo teelee bëri xam nga dégg naa nit ñi di werante ci Eumeu seen ñii naa ancien gloire la ñii naa waaye ancien gloire jeeg at yi ñu koy jox kenn ku ne naa mi ngi juddat sàngam mi ngi def nangam mi ngi def nangam fi muy jaar gaa yi juddu bëri ki démb rek moo la koy won ñi juddu am ñaar fukki at ak juróom toll ci digg doole kum ci dajel daf lay maate ëmma dafa teel a bëre xam nga boo boo juddoo ci diggante Pape Diop Baston suma xarit kër Faalaay Balde Mansour Diop booy Ñang daam Sugeer booy juuf Dégol ñooñu ñëpp boo juddoo ci seen biir foog nga foye bëre dafa teel a foye bëre ba pare tarbiyu ko yàlla dafa fay ëmma seen ndax soo xoolee ëmma seen maa ko jëkk a tegal dix mille francs ci àddina maag Gaston Mbengue moo ngi Mbaye Diouf Seex mbàbb ci kër buntu kër Baye Youssou Diène Baye Youssou Diène a ngi toog Eumeu Sène moo dem moom sa li ñu la ne champion de Afrique la champion de Afrique bu njëkk mën na doon par équipe mën na doon individuel bu ñu demee par équipe ba équipe nationale ñu ne équipe nationale du Sénégal moo gañe coupe bi ñu dem nag par individu bu boobaa ci yooyu ku ca daan sax ñaari yoon ngay doon champion parce que bokk nga ci bii ndax équipe bi bu bu bu juróom la ñuy doon su ñett daanoo su ñaar daanoo ñett daan ñu qualifié xam nga équipe nationale Sadio maane doo nga nekku ci noonu rek la mel. kon Eumeu Sène champion lu leer la. non champion d'Afrique bu Eumeu Sène lu leer la te booba la champion d'Afrique jafe woon booba la neexoon booba la amoon valeur booba lañ ko daa booba mais équipe nationale bu dem président de la république teeru la aéroport Léopold Sédar Senghor ci ci ñoom la amee lees bi muy gagné champion de Afrique Moscou président juuf daf leen jox raaya bi jox ko loxo ni ko lees mu naa ah, mu ne ko soo indee champion de Afrique maa leen di jël si aéroport Léopold Sédar Senghor keroog sunu mag Moustapha Ndiaye yal na yàlla dolli ko leer moom ma ko nittali parce que ñi leen gàttandu woon ci laa bokk ndax boobu maa ngi dëkk Kër Tafa Ndiaye rue 5 angle 6. bi ñu demee ba gañee gaañi yi tudd tudd boobu ñoom équipe nationale xam nga mi ngi jóge ci Robert ñoom booy Bambara. Pape Diop ñoom ñëw ci ñëw ci ñoom ñoom ñooñu rek consort yooyu ba bi muy ñëw ci non Birahim Sekroua est-ce que Birahim Sekroua musul dem champion d'Afrique Sekroua wóoruma ça passe en tout cas Cheikh Mbaba Amadou Kati Diop Ambroise Sarr Pape Diop Manga 2 et tant d'autres ñoom bokk nañ ci compétition bi mais boobu dafa amoon mbëri yoo xam ni ñoom xaalis bi bëre Sénégal moo leen gënal ñu dem bëre ji bokk ci champion de Afrique yi mais boobu bi yàlla dogalee ñu daan gaay ba mu des lees dafa njaay jooy ñëw ci lees arbitre baa ngi leen di woo ci tàppi bi Tafa Ndiaye di jooy ni ko lees mu naa mu ni ko Sénégal yow rek yaa nu dese boo daanoo rek drapeau Sénégal sëgg lees yow rek la Sénégal di xaar lees loo waxan président Macky Sall loo waxan président Abdou Diouf lees président newoon na su suñu gañee médaille bi moo nuy teeru si aéroport lees lëng Moustapha Ndiaye jooy ne ko tafa mun naa ah, mu ne ko demal nga toogu Diouf dana ñëw stade da Diouf dana ñëw aéroport ñooñu ñoo doon raasu mbër bu am jom. ñooñu ñoo daan ay ñooñu ñoo xamoon lan mooy lan mooy dayoo. boobu la tànki lees goos góos bi ci la yàqoo lees amay nittali compétision bi bi ñu songoo. double rotation la duubal lees def def ko daan deux fois. tourné ci kawam. waaw aussi matale ko door waa ji dem yëf yi jeex waa ji fëx mu dóor ko beneen mu jeex mu jël médaille door bi takk ko ci baatam président Diouf ne waxoon naa ko def nga ko dinaa ko def moo leen gàttandu si aéroport ci buntu sax euh, avion bi lees bi président Diouf taxawee lees dafa jël. médaille bi wékku ci président du kottu président jooy kon médaille yooyu amoon na solo médaille yëpp am na solo mais yooyu amoon na solo. mooy ñenn ñu ne Franc champion CEDEAO wala mais du champion d'Afrique yow mi fekkee lambi démb. waaw effectivement champion CEDEAO ak champion d'Afrique bokkuñu champion d'Afrique da ngay xool ay ñoom Malick Niang bi ñuy dem Helsinki bokkul c'est pas la même chose. lu tax ñu bari dañoo jàpp ne Franc champion d'Afrique la. non non champion CEDEAO tournoi CEDEAO mooy Gambie Mali Burkina Faso Mauritanie Guinée Bissau euh, Nigeria Niger Bénin et d'autres bokkul ñii sunu ñii léegi foofu la yeman mais bokkut ak ñi dem Moscou bokkut ak ñi dem Birgali bokkut ak ñi dem Maroc bokkut ak ñi dem euh, euh, fële. ci et tant d'autres et tant la même sos bokkul. Eumeu Sène ban la ci moom bu baax bi am. Eumeu seen ci ci ci ci ci yu mag yooyu la demoon ak ñoom ama seen xam nga dafay am catégorie bu njëkk bu ñu nee tey poids lourd Ambra lese laissé Amadou Kati Diop ba dañ koy topp minime ba ñëw ci Eumeu Sène juróomi catégorie la ñuy doon yàlla def ci mayoon Sénégal sens. mali Niang bii ak ñoomin Doudou Bakka ak ñoomin Robert Secroix ñoo demoon Helsinki mais lees dem na Bulgarie dem na Moscou dem nañu ci réew yu bari ah Munich Cheikh Mbaba moo jëkk indi le sabre d'or champion d'Afrique c'était à 85 su ma juumulee wala 88 sa croix Pape Diop Baston gis nga ko indi médaille yu bari dafa mënoon a bëree jàngira korom parce que Pape Diop Boy Bambara Modou Pouy Amadou Kati Diop ñooñu ñoo ko jàngat ak Robert Diouf Robert professeur la boo xoolee Robert moo formé am na tey ay professeur ay ay colonel yu bari ci police ak i lieutenant ki commandant Robert moo leen formé ndax boobu sunu baay bi génn àddina bërki dem muy baay Cheikh Diop maa ngi koy jaale général Daouda jóob doomam ak famille bi yëpp di ñaan yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko jaale Sénégal di ko jaale général Cissé bu armée bi ak gendarmerie ak police ñu ngi koy jaale way takk der yëpp ndax mooy papa yi Daouda Diop général Daouda Diop. Baye Cheikh Diop doon mag moo xam ni nekk na fi président menacé di Sénégal moo engagé Robert 3000 ba yóbbu ko ci 1 million 500 moo engagé Robert 6000 moo engagé maa ngi 6000 maa ngi toog bu yóbbu ko ci 38 millions mës ta jël 1 pour cent mës ta jël 10 pour cent góor googu génn àddina barki dem mi ngi génn àddina ci 104 ans. moom lañ doon saraxal dimanche barki démb. yooyu amatul kooku noo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana parce que bu njëkk tax na séréer siggi tax nañu ñu respecté séréer muy bàyyi Cheikh Diop tax na ñu fonk séréer muy Baye Cheikh Diop. kon maa ngi koy jaale Séral Daourou Diop ak famille bi yëpp di ko jaale Khady ci doomam yu jigéen yi moom itam di ko jaale aselem di ko jaale imaam ba di ko jaale euh, président. Bassirou Diomaye yeble na fa ministre de l'intérieur ñëw na ñëpp ñëw nañu tabaarkalla ndax dafa jur général te général bi mu jur bokk ci yi gën a xereñ ba pare di gone te amu fit tey jàmbaar te jub waaw. jërëjëf Père Khadim loolu tam luñ doon ba beneen point mooy diggante coow lam ci diggante Abdou Aziz Ndiaye ak Abdou Rahat dañ say ñaari dañ ñaari doom ban message bi nga déggee coow li. waaw coow li xam nga comme période tabaski maa ngi nekkoon ci ndax xar yi ma yar yare leen Dakar maa ngi nekkoon ci transfertu baas yi tib yi ndax baas yi ma nga nekkan déndey fale sama kër ci commune bi fi ma dëkk fi ma juddoo ndax nawet foofu la baas yi nekk yéex naa ko yëg mais bi ma ko yégee rek maa ngi doon woo Aziz mënuma koo jot. dafa mel ni dafa tukki waaye bi ma ko yëgee euh, laa daal di woo Abdoulaat njaay ne ko yaa waxoon ci sa kanamu yaay ni sa baay laate mat naa la baay mu ne ma waaw ma ne ko dama bëgg nga arrêté coow li bul tuddati Aziz mukk ci àddina ndax nit du weddi boppam te yaawax wax bërki démb ne Aziz jox na la juróom-ñaari nag. ak ceeb bu ko togg ak diwlin ak ñaari million ne dëj leen Gaston Mbengue te ñu bokk ab teen ñooy laxa sooy gaj mu ni ma incha allah dootuma tudd turu as di ci wax dara naka sudut noonu dama meroon rek ma ne ko arrêté coow li woo naa Aziz jotuma ko bu ko yàlla sunu borom dogalee bu Aziz ñëwee dinaa woo Aziz Abdoulaat ndax man duma laaj ku tooñ Abdou daal ñoom ñaar ñëpp samay doom lañu Aziz man naa tey ni Aziz mën naa nekk sama taaw ndax fi ma taaw di féete Aziz féete na ma fu raw barke sëriñ Bamba ndax Aziz baayam laa doon àndal Aziz nit ñu bees ñi muy àndal bokkuma ak ñoom Aziz dafa doon làmb bokkut ak ñoom ci làmb ñi nga xam ni jaaxlee leen dugal ci làmb ak amuñu métier ak ratis seen vocation bokkuñu ak Aziz Aziz ni baayam dugge woon ci làmb la ci dugge bàyyam moo daa lebal les communicateurs Ablaye Naar Samb ñoom ñuy tëgg làmb bu leen lebalee 500000 ñu tëgg làmb bu buñ dikkee di ko fay mu ni may naa leen xaalis bi. Jibi Ndiaye mi bokk ak El Hadj Aale Ndiaye ndeeg bàyyi di taalib Serigne Abdou Khadir moo jëkk a jox Tafa ci àddina ñaar fukki junni ak pasero bu bees Tafa Gueye wuti Serigne Guinée ñooñu amul mbër mu ne Sénégal tey. ci génération te lekkoo seen alal lekkoo seen teraanga amut Aziz dafa judd rek fekk duubal lees ñoom Mbaye Guèye la Tigre de Fass Moustapha Guèye ci mujj su ma juumulee umra umra umra quatre vingt umra quatre vingt six wala quatre vingt alaaji Ali Ndiaye Asablaay Naar ñoom Abdou Katingom yàlla na leen yàlla yërëm les grands griots parti socialiste lañ tuddoon ñoom dañoo ñëw ne ko dañoo bëgg a tëgg làmb dañu dañu dañu but xaalis ne ko mu ne leen lu ngeen soxla ñu ne ko cinq cent mille lañ soxla alaaji Ali Ndiaye lebal leen téeméeri junni bañ def téeméeri junni seen poche ne ko drapeau bi nag yow lañ koy tuddee. maa <laughs> loolu mooy marketing. mu ree ba sonn ne waaye man damay dem umra ñu ne ko nun daal boo fi nekkan sax soo dikkut ñëwal rek. muy loolu waxi géwal muy leen d'accord mu daldi ma woolu maag jibi jibi njaay jox nu trois cent mille ni bu nu fi bu leen fi yàlla bàyyee ba làmb ja na ngeen dem représenté ma joxal ma Ablaye Naar ñoom ak Mor Dior Seck sem su ñoom As Makhtar jàlloo ma nga ca woon Pape Ngom ñoom nga joxal ngeen jox leen trois cent mille yi maa leen ko jàppalee ci làmb ji sant naa leen ci tànn gi ñu ma tànn tuddee ma bés bi man maag ji bi ñoo ko représenté ci làmb jooju yàlla dogal ñu tëgg làmb ji xam nga làmb ji ñoom booba kilifa yi booba dañ leen di dimbale ay alaaji Jili Mbay dañuy dem ca moom dem ci alaaji Njuga Kebe dem ci euh, dem ci Jaalo Jóob ñoom dem ci euh, dem ci comment dirais waay kii sunu sunu mag ju baax jawaay euh, Tamsir Mbuub ñoom dem ci ñooñu xaalis lañ leen di jox nga xam ne làmb ji mën nañ ko def gratuite léegi nag am kenn koo xam ne xam nga Sénégal dafay nekk réew moo xam ni Euh, day am nit ñoo xam du ñu bàyyi weer ci benn pan ñu gis làmb ji bariwul nit kooku yàlla dogal mu dem aéroport tasanteeg Alaaji Ali bàcc ci aéro avion bi di di génne ay bagages mu daal di nuyonteeg moom daal di ko ne Alaaji sa géwél yi day dañoo perte boo leen yóbbul police doo fayee ko xaalis bi de dégg naa yaa leen lebaloon xaalis Alaaji Ali mu ngi ci dëgg maa ngi ci leen mun leen dama leen koo mayen mu ne waa ji dama leen koo mayen lebaluma leen ko. da war na am gàcc. ale asis dafa donn làmb euh, maa ngi wax ne gis nga sëriñ moor Diop bi nekk parcelle mi ngi dund mi ngi may dégg njaboot ak may dégg ale daana ko jox fukki kilo ceeb ñu togg ko ci kër gi du jeex boobu sëñ Mor tilleen lay xëy ci baraag bi boobu baraag bi alxuraan la koy jàll ba moom du am fu mu toog der bi muy toog rek yàlla na yàlla sunu boroom may ko fan wu gudd muy nitu yàlla bu mag mu ngi fii ci parcelle yu bari xamuñu ko moo tax may wax ni léeg léegi nit defe ni fii daraa ngi fi fekk dara nekku fa ñu romb foo xam ne lu nekk nga fa dara du fa jeex sëriñ Mor dara jeexul ci moom moo tax kere bi nga xamante ni tëral nañu Alaaji Aale Njaay Abdou Aziz ni ma lu la góor gi waxoon ma ni ko góor gi daal newoon na ma ci sa kër kere bañ sancee kër ak Tiwaawan gi neel Abdou Aziz bu ndigal jógee kër Sey Jaaj Malick jaar kër sëñ Babacar bu mu la ci jëkk na ci mujj lool la ma sa bàyyi waxoon wax naa la ko mi ngi nii tëdd yaa ngi nii maa ngi nii Serigne Habib bu Seydi Mansour sëñ Moustapha bu Al Amin ñoom taxaw ak dafa am benn xaritu baay Alé boo xam ni bii moom la Baye Alé defoon kilifa ci Sénégal mu ne ñokket wax diggante baay Alé Alaaji Alé Ndiaye ak kër si Jaaj Malik kër sëñ Babacar ak digganteem ak Al Amin ne nag newoon na kër si Jaaj Malik kër sëñ Babacar ñooy samay sang ñoo moom sama dund moom sama dee waaye su ma fi jógee na ma Serigne Mor jullee sëriñ moor Diop moo ko jullee booba tilleen amul bâtiment baraaga fi nekk léppi baraag la ceeb bi bu bato bi teere lim ci jënd ak lim ci indi liñ koy indil ci baraag yi lañ koy def ba mu fees sëñ moor bu xëyee sëñ Mor du lekk waaye li gan ñiy dikk di ko seet ñii di jël wird ñii di ñaanlu ale koy jox ceeb bi ba ale di joxe ay ton ba assi di joxe ay ton tey. Père Khadim li am ci làmb léegi. mu mel ni ñi lay indil ñoo lay yóbbul dem lente gi dikkilante gi ak yaama nekk maane la ñoom tam ñàkk réeróo bi am seen diggante loolu am na ci. waaw boo gisee man tëggatuma làmb daanaka bàyyiwu ma nag làmb waaye dama deman ba gis ne am na rax. rax lan la. rax bi mooy ñi nga xam ni ñii dañuy bëgg a lekk ci asis lekk ci Laat lekk ci Pape Abdou Fall. lekk ci Laat Njaay lekk ci Jéy Seen lekk ci Fàllu Njaay lekk ci kii te duñ tëgg làmb bokkuñu ci. amuñu licence. amuñu looloo tax bi ma gisee sama làmb ji ma mujj a tëgg ma def rép ma replier bàyyiwuma làmb dinaa tëggaat sax làmb ju mag bu soobe yàlla maa bëgg naa ubbi saison bi incha allah mais loo taxan ma replier ba pënd bi wuri ndax bu dee taw doo fobeere da ngay bàyyi ba taw bi si wet nga door a fobeere ban conseil nga leen di wax ñoom ñaar ñu maytoo yaama nekk maa ne leen ndax ay kilifa lañu euh, laat sama dooma Aziz sama dooma seytaane dugg ci ñoom waaye li Abdoulaat njaay man laat xam naa ko parce que laat ci man la ko gas noo jëlee xamoo. ah bon ah oui laat daana daje gastoo ci làmb ji du ñëwoon te ñoom ñaar man man la man la jonn ñëw ni ma. am na xele bu nekk ci làmb ji bu jub bu xam làmb ndax jonn ak Daouda Sarr man may seen mag di seen xarit ñooñu Bada Jonn ak Daouda Sarr ñoo tax Aziz dugg ci tëgg làmb ñoom ñoo créer Bandia production ñoo doon troisième structure bu fi am bi ma créé Gaston production 92 créé 85 Mouya production vingt 86 87 88 89 laa créé Bandia production ñoom ñoo jëkk a tëgg Balla gay bii tëgg nañ ko tëgg nañu Maam Góor juuf ak ay ay ay ay tawaati ñoom ak ñëpp tëgg nañ ko ñoo ko jëkk tëgg. yow yaa indi laat ci làmb. indiwuma laat ci làmb dama ne Abdou Lahat ci man la ko Gaston jëlee. kon sa sa moomeel la Gaston récupéré foofu. waaw maanaam Gaston daana dajeeg laat ci làmb ji du ñu nuyoonte. xamante wu loon wala lan la xaw ma. mais loolu man fekke naa ko mais man dañ ma booleek laat laat nekk sama doom liggéeyal ma liggéey bu rafet mais bi mu bi ko Gaston récupéré ma xam ni ànd ak gas ànd ak man dafay difficile ndax maa créé Gaston production kon xam naa gas gas xam na ma ma bëgg a libéré laat ma arrêté parce que su fekkoon ni arrêté wu ma tëgg làmb laa nekk ci sama digganteeg gas dina dina mujj foo xam ni du baax te du comme laat sama dooma ànd nañ tëgg ñaari at làmb làmb ju ci nekk te am naa ca teraanga moom am na ci teraanga moo tax ma ne bu yàlla dogalee Abdou Aziz Ndiaye ñëw laajuma luñ jote bugguma koo xam bu ma kenn woo laaj ma li may def mooy Aziz sama dooma laat sama dooma Aziz laa laay wax mu jóg top ci man ma ñëw ne ko jool Aziz baal maaq mu ne ko baal maaq ñu fóonante mu jeex. tàggatoo. ndax li asis li li Gaston waxanteeg Aziz laat waxanteeg gu ko asis waaw maa fekke mboj mi moo ma xam ni dugub ji toll li Gaston waxanteeg Aziz Abdoulaye waxante wu koog Aziz li Gaston wax Aziz Ndiaye laat waxu ko Aziz te ñooñu te te te te Gaston. mujjam ci dundam Abdou Aziz féete na ko fi doom di féete bàyyi ci lu ma fekke man ci mani Gaston waxuma nag bi Gaston tëlee laat ab Abdou Aziz Ndiaye jàppale na gas ci man jàppale ko ci man a di loolu nag yàllaa tax ma di ko wax pour waa kër Gaston xam ne Abdou Aziz Ndiaye taxawu na seen baay lu jiitu seen baay di tële ci lu ma fekkee. ma wàcc sama kàddu ndax li ma desee pour mu li bareetul ñaari minute rek diggante Ama Baldé Gris Bordeaux ñu tàggatawaale loo gis waaw combat bu neex rek di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen gudd fan may leen wér di wax ni Médoune mbër yi bu ñu nungu kenn di leen boole Eumeu seen bu dee Médoune Diouf mi la yaakaar du dootu lekk dootu naan ndax Médoune du bëre bu dee Fadal la yaakaar dootu lekk dootu naan ndax yow doo bëre man mii di bàyyam su fekkee man la yaakaar bu dee man a dootu lekk dootu naan dootu bëri te loolu moo war a ci kull kuy mbër ñoom ñi nga xam ni ñooy mayante ay 100 millions ki 40 millions ki 50 millions bu ñu nungu kenn boole leen parce que la mbër doo nga ci gagné promoteur perdant la amateur perdant la journaliste perdant la caméraman perdant la communicateur perdant la microcentral perdant la animateur perdant. li ma leen di conseiller mooy. bu ñu nungu kenn jaxase leen Franc Eumeu Sène magama na ko respecté fonk ko man na rek chose grand bi maa ko man nangam nangam mais man nañoo dëkkante animé mais bu ñu xasante Eumeu Sène Modou Lo bëri naa moom ba bëree ba jeex bu dee wax ak Franc bu mu ci tudd Ama bu mu ci tudd Modou Lo ñoom ñëpp ay xale lañu li may conseiller mbër yi bokk leen ndey bokk baay keroog ba leen président Macky Sall di recevoir yéen mbër yëpp a dem keroog bokk ndey bokk baay bokk fa naanandoo boisson mu yëkkati ay millions yu bari jox leen. ngeen fecc ca biir pale ba lu ma mustaam kon loolu teraanga la te yéen ko bokk yéen yéen a bokk lépp bu ñu nee mbëri làmb yi du ñu woo Médoune Médoune bu ñuy woo caméraman wala wala wala technicien lañ koy woo du woo Médoune yow bu ñuy woo dañaa reporter mais yow duñu la woo mais bu ñu nee mbëri làmb yi mbëri yëpp ay dem. Euh, te man gisoon naa fekke na Manga fekke naa Ambroise fekke naa Sitafa Thior fekke naa maamadi fekke naa Papa Kane fekke naa mbay Guèye fekke naa Pape Diop kon xam maa nga gemb naa ko 54 combats combat bu mu bëree xam naa ni muy daane bu dee niir xam naa buñ ko dee daan xam naa mooy seen lutteur boo xam ni bëri na ba bàyyi bëri amul noon ci làmb parce que ñoom ay adversaire la ñan mais duñu ay ennemi combat bi gën a metti ci màng ci àddina mu bëre ba mënatul a taxaw nga xam ni bi combat bi jeexee dañ ko téye ndax dafa naroon daanu te dafa niil mooy combat ak Birahim Ndiaye te gis nga ni mel ne Birahim tey xool digganteem ak Alioune sey xool Balla Gaye 1 na ko yàlla yërëm quatre fois la bëreeg mànga dañoo bëre Assane Diouf niil ramas stadium Iba Mar Diop mànga door ko mu daanu ñu bëre stade Iba Mar Diop niil rawans mànga door ko daan daanaat ko. bëgguma lii des ci temps bi bariwul dama bëgg ñu taxaw ci ci mot ci ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux Ama Baldé ñoo gisee jooju làmb combat la boo xam ni bii ñaanal leen ñu wér ñaan réew mi am jàmm ñaanal promoteur bi ko tëgg yàlla sunu boroom defe naa Baye njaay moo ko tëgg alburaax yàlla sunu borom defal ko ci lu kawe njortam ndax mbër yi ak menacé yi surtout menacé yi loolu ki ma sañ a ci menacé yi mooy Abdoulaat maay baayam xam nga menacé bu promoteur amul menacé du am pourcentage menacé su promoteur amul du doon menacé parce que bala ngaa doon menacé dangay am mbër sa am combat su mbër mi amut combat doo menacé menacé jamono ji nga ko doon jamono ji nga yore carte bi dikk GNC signé ñu jox la avance nga dem soo génnee foofu doonatoo menacé yaa ngi mën a yem kon menacé ak promoteur ñoo bokk ab teen ñooy laxa sooy goj nañ jàppante fonkante bu ñu nungu ñoom it kenn jaxase leen. benn mooy combat boobu komba la boo xam ni bii combat bu rëy la. komba boo xam ne dañu gis Gris doo beneen Gris Bordeaux bu bëgg combat bi. waaw xam nga Gris ndaanaan la Gris ñu bari dañoo yaakaar ne xeex la gën a man mais Gris jàppante la gën a man Gris dafa mos loxo yi mu neex mais giir daf daan bari Girib daan riñaan daf lay ki ki gën a naqaree riñaan ci àddina mooy Antoine baaxum da koy lu ba taxaw daw moom dóor ko ci suuf. moo génne Giri la moo ko génne lam Giri maa ko jëkk a tëgg ci àddina fay ko 800000 yóbbu ko Dagana 2001 mu contre Samba Diagne combat bi yeggut maa ngi Momar Ndiaye drapeau Omar Sarr premier gouvernement président Abdoulaye Wade. dama la ne 2001 laa ko jëkk a yób premier grand combat maa tëgg kay. boo jógee ci giri caatu Faalaay Balde Ama Balde. avance bi ñu bi afa bi bi mujj fekk ci àddina maa ko yóbbu. muy mokkan. Malick Niang lekk na ci avance waaye bi combat bi am fekk na Faalaay génn àddina dañuy ñëw maag Gaston parce que boobu combat bi bari na coow sur Balde bañ Gaston ñëw jël si ma maag Pape Thierno Ba mi ngi dund. ñu ànd ñoo fekk Falaye mu toog Gaston ñoom nuyoo moo Pape Thierno yéeg ma toog ak moom ci suuf mu ni ma Khadim suma paala woon ndax dëkkoon Pikine mu ni ma lu indi ma ni ma kaalis mu ni ñaata ma ah bari na de mu ni wool Souleymane na jël de bu kaalis génn de ci buntu kër gi la toog ci suuf nu yéeg mu ni ma waxoon naa la bu caat màggee rek yabeel bi dana jeeg Souleymane bëgg na bëre waaye caat la maa ngi maa ngi ay ay reportage émission yu ma def ak Falaye Balde à 94 95 96 ci rajo maa ngi émission yu ma def ak moom ci caxabal yoo xam du jeex Falaye dafa mos miise ci ama Hamas boobu keroog bi ñu yéegee siltee nañu këram kere deux heures du matin lañ fa jógee ma yéeg ni ko sa papa ne na nga jël xaalis bi bu xaalis bi wàcc mu ni moo ko wax ma ne ko waaw mu wàcc ne ko lu wax xaadim mu ne ko jëlal kaalis bu mu dëggaloon combat bi ragal la woon wala ñàkk a wóor euh, ama wala wala wala combat bi diisoon wala lan la woon. jamono Malick Niang dóor na ñëpp ñu daanu. amaa doon mbër muy dóor a ñëw. daan na sax ay ndaanan waaye boobu Malick Niang kaawoo rek ku mu dóor nga xalangu faalay nu jëlal kaalis bi ñu jëlee avance boobu bés bi ñu jëlee avance dellu si faalay génn àddina bi pa bi pa bi amaay dóor Malick Niang mu raam mu maab ko mu defeenu fekk na faalay ci bersàq moo tax képp ku am waajur del jëfe ndigalam mbëri sëriñ baax na lool nun ñëpp dañu koy wut fi la nu ko fekk waaye nag am ngërëmal waajur ak ndigalal waajur dafa am solo komba boobu ci laa xame ne sa baay bu la nee daanul ci teen daanul ci teen sa baay bu la nee tëddal ci autoroute bi tëddal ci autoroute bi oto yi dañ lay romb dara du la jot ndax boobu ñaari nit a gëm ne ma ma amaa mën naa daan Mali Niang man ak Falaye Balde kenn gëmu ko woon ci àddina muy Gaston mi tëgg làmb ji Pape Thierno mi ñu àndal Sul Balde mi koy gemb Pikine ak amateur yi koy seetaan kenn mënut a imaginer ne Falaye ne ne Mali Niang du dóor amaa mu daanu mais man maag Falaye ñun ñoo gëmoon ne amaa mën na daan Mali Niang jël bu àddina bépp. nga gis far kaawoo li Malick Niang doon def loolu la ko faale loolu la ko amaate te amaa ta xeex moo tax digganteem ak Gris Bordeaux su may conseillé amaa day fermer toog ci tànkam xool Gris bu fexee mu daw jàppanteeg moom mu ñu wuti ndax làmb ji ca papakan caaro yi ak Boy Niang macha allah sama xaalis xëy na Gris ci dàq xeex moo ci gën a rafet ab xeex dóor mu daanu nag ak mën a xeex bokkut Modou xeex bi muy xeex gëj naa ko gis ca Boy Naar Fall sëgg di xool suuf dóor la épirkil say bañ boor booy ña ngay doon def loolu ak Boy Naar Fall amul beneen mbër bu bu bu ci façon yi xeex bi muy xeex moom rekk a ko man amul beneen mbër boo xam ni mën naa xeexe ni Modou xeex doo ko gis ci waxtu ko toppee fi lay fanaan looy tàggatoo. di sant yàlla sunu boroom bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan yàlla sunu boroom tabaski giinu nu dëgmal yàlla na yàlla sunu boroom defal nu ci tawféex di ñaan yàlla na Sénégalais yëpp am xar jigéen ñi kuy tabaski yàlla na la yàlla may xar. di ñaan yàlla sunu borom mbégte mi nga xam ni moom la sunu maam Ibrahima amoon. Ismaïla am ko Aajara am ko moom Mamadou Fadal yàlla na ko sénégalais ak sénégalais yëpp am di wax nag ni képp koo xam ni jigéen ñi si ñoom laay jëm si sama kër laay commencé man sama kër bi sadoor amee léegi Sador rek la ñuy toggee xar mi su duufee jëndal Sador. su duuful nag nga xam ni mooy xar yi nekk ci mbedd yi taxawaalu amatuñu gerees kooku boo jëndee huile Sador place su gerees Sador a fay nekk muy huile Sador. moom la koy remplacer. moo koy remplacer parce que mooy huile boo xam ni dafa leer nañ boo yëkkatee huile Sador da ngay jàkkaarloo ak bâtiment bee. mën nga cee seetu mën nga cee seetu. waaye nag bu fekkente ni lakk nañu nga lekk ci foie bi ak côtelette yi def ci quelque xobi salaat def ci tuuti moutarde ak yi mbar a. waaw ku summi. soo paree nag te bëgg a di seere. lan moo koy wàccee. kooku nag mooy original bu Ndoukoumane groupe. dama lay wax dara de. naan saaxa bi. dama la ne xam nga li tax Ndoukoumane original bii xam nga fur wi naan sàq mi mooy tax nga teel di seere loo mën a añe bu fekkee danga nga añee côtelette yu ñu grillé walla nga añee tufe wala nga añe muusal soo paree naanal original rek. mu wàcce lépp nga dégg jàmm. ku bëgg am ci yooyu original ak Zador bi nooy def na. original ak Zador nag soo ci bëggee da ngay téléphoné. 77 77 644 15 67. woote ci 644 97 38 woote ci 77 644 vingt 22 yooyu foo nekk ci 45 départements yi ak 14 régions yi soo woote ñu libéré la ñu li ñu libéré ñu indil la. quantité boo ci bëgg. quantité boo soxla ci ori boisson originale bii nga xam ni ndukkumaan groupe ko indi muy as ndaw sandee nekkoor faal. bu dee département bu dee département Tivaouane ci département bi yëpp biir Tivaouane boo génnee Touba Toul bay dugg Tivaouane di nga gis direction baa nga foofa kon département Tivaouane ba ba ngay dem Ngaay Pire dem Louga ba Saint-Louis dem Ñomre ba ba ngay dem Kër Madiabel ba ba ngay dem Nayobe ba ba ngay dem cumaadu ngeen gong Mamadou Gueye foo ci nekk soo rombee fanweeri kees ñeen fukki kees boo ko rombee ñu la koy indi te doo fay transport kon sénégalais yi képp ku jigéen ju bëgg sa tabaski neex góor gu bëgg bu sa jabar saafee ba pare nga lekk ba suur naan lëwal jël ndukkuma jël jël original te original dafa bari façon xam nga original est xam nga original mango bi bokkut ak original orange bokkut ak original pamplemousse. man moo ci man mango bi lay gën a naan mais nag danaa jël pamplemousse bi léeg-léeg mais orange bi dafa neex cocktail bi nag mooy daan ub gi mooy dàllinkoor bi. mooy tàmbala saa bi. mais li tax may conseiller jullit yëpp nañu consommer huile Sador ak ndukumaan original huile Sador këri diine yëpp. huile Sador dugg na fa ndax huile Sador Abdou Aziz mi koy indi du jaaylu araam moo tax may wax jullit yi li ñuy lekk ak liñ leen di jox ñi di ko def ci jàkka ak jumaa yi nañuy xool fi muy jóge kon maa ngi recommander sénégalais ak sénégalaises yëpp pour nu am indépendance doomi Sénégal yi nga xam dañoo reyante. commencé ci ñaari téeméer ba yegg tey ci milliard nañ leen jàppale di jënd ci li ñuy jaay ndukumaan bii ñeen fukki weer yu manqué benn weer 45 tonnes la as ndaw di joxe une tonne 500 la kokki di lekk par jour kooku moo créé original bii original bii mi ngi dundal ay baayo di dundal ay taalibe original bi mi ngi du mi ngi yóbbu nit màkka mi ngi génne asaka di natt muuram koor mi ngi tabaxi jumaa yi di tabaxi jàkka kon sénégalais yi ak sénégalaises yi noo ngi jëm ci tabaski te tabaski kenn mënu cee génne huile Sador kenn munu cee génne original. yàlla dañ ko fekkee seen baaraam ma dem te ñëw c'est ça la réalité.